jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni leen koy defalee saa su ne tey nag ñu toog koo xamante ni vraiment kenn du ko présenté ci làmb muy guy gi le roi du simple baobab bi nga xamante ni vraiment kenn du ko présenté ci làmb mu jëm ci bis bu rëy di ko waajal diggante ak Reug Reug bëgg nañ waxtaan ci wàccaay wi ba mu jugee États-Unis ba léegi gis nañ guy gi nekk ci ruqam. lan moo waral loolu loolu yëpp dinañ ci waxtaan ginaaw loolu dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéyal waxtaan bi mbër maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw jili maa ngi lay fay di wax ni auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ban sant yàlla julli ci sant sama ñaari waajur maa ngi nuyu suma papa ak suma yaay. maa nuyu sama famille di nuyu waa Thiénaba gi yëpp di nuyu sama sëriñ Cheikh Seck borom ndigal di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ak wér. di ñaanal sama xarit bu général Baye As na fi yàgg te wér sama xarit bu général Mame Cheikh Ahmed Tidiane Ba Abdourahim yàlla yóbbalal àjjana nuyu waa Thiénaba gi yëpp bàyyiwuma kenn. di nuyu suma yaay Waré Sarr bu baax a baax a baax a di ko nuyu bu baax di nuyu tamit sama benn grand bu nekk France Mambay di nuyu doomu Waré Sarr di nuyu tamit Jibi Silla suma xarit sama sama lépp vraiment. parce hmm. que dem rek ay millions yu bëri la ma yóbbante ci komba bi. Hmm. di nuyu tamit benn xaritam. Ah, président Mohamed hmm, Dan Diop. Euh, muy mouvement passe-passe vraiment muy ku baax. ku réew am yaakaar tamit vraiment di nuyu waa Guédiawaye gi yëpp nuyu sama grand am Amady Dara niveau maire. nuyu Malick Gakou. di ko wax ne ñu ngi lay xaar ci komba bi. vraiment xam nga euh, ñu koy xaar bu baax daal ci combat bi di ñi nga xam ne vraiment ñooy jàppale guy ku ci mel ne Ali Mané Cheikh Mbacke Ndiaye xam nga Pape Mama Fall xam nga di nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn waaw di woo sunu garaam tatal bu baax ku ci mel Aziz Ala Ndiaye xam nga ñu ne ci combat bi bu baax mos nga préparé combat bu gën a yàggee combat bi waaw combat bi euh, xam naa li ko waral mooy Covid bi ñaari yoon. Hmm. waaw bi ñaari yoon ñu yàqu ma demaat ñu demaat États-Unis tamit damaat defaru. Hmm. entrainé ñëwaat mooy bii nii muy ñett yoon métti na trop moom. métti na hmm. trop moo tax laaj jàppale parce que li ñu yoroon yëpp nañ ko ci. waaw moo tax ñu defaat ñu woo ñi nga xam ne ñoo ñu war a jàppale. mais mosoo am combat bu yàggee comme préparation. non non non non mu ngi doog mu ngi doog a a am. adversaire bi ngeen jot a wax yéen ñaar waxaat waxaat. au début dañ doon gis rëg-rëg moo daan wax wax na wax la wax la wax la nee na ba dalaa sànni on sax nga jël combat bi mais dañu gis ci combat bi lu muy gën di dem ñu gis rëg-rëg discours am di gën di changer ñu gis léegi rëg-rëg position bi mu taxawoon guy gi moo fa taxawee actuellement lan la dañ laa dee ci combat bi wala da nga gëm ni xale bi dafa dafa onze jën bu ko ëpp doole comme nu nga koy wax. waaw di nuyu tamit sama président équipe di Pade Sylla. Hmm. di nuyu tamit Djili Wade Mm-hmm. Maawa Saar Saare Ngaylum mm-hmm. xam nga vraiment du nuyu waa école bi yëpp. ku ci mel per Père Gora Fall tamit xam nga. Gandhi nuyu ne ñëpp daal bàyyiwuñ kenn staff Mor Fadam bi yëpp. Mm-hmm. ñu ngi leen nuyu bàyyiwuñ kenn. waaw parce que tamit vraiment dañu sonn ci ñun. di nuyu tamit waa école bi ñi fi nekk ñëpp bàyyiwuñ kenn ku ci mel ne Cheikh Super jamono Homo Sène Junior xam nga. ay ñoom mbaytin xam nga ñi fi nekk bàyyi ay ñoom ngala bébé guy gi ñu fa am combat yàlla na yàlla may ndam ku ci mel ni buusita am na combat yàlla na ko yàlla may ndam Cheikh Super Diamé defe naa tamit am na combat yàlla na ko yàlla may ndam ñu amul combat yàlla yàlla may combat ñu am combat bi ndam parce que tamit sumay rakk lañ hmm. waaw des fois sax gis naa benn site ñu dugal buusita booy booy bi di ko poussé di ko poussé di ko poussé pour mu wax xam nga ñoom defaa yenn sit yi mm-hmm. li ñuy jàppee mooy nga poussé nit mu wax lu ñaaw rek wala nga wax na loolu loolu du liggéey mm-hmm. booy bi bañ na ba sonn pour digganamee guy gi mu ne ko mu ne kérémeer gañ affaire yi maa ngi ko doon seetaan mais booy yëpp sumay rakk lañ muy mm-hmm. buy sita muy safara muy muy muy muy kii euh, mbaytin mm. ñoom ñëpp sumay rakk lañ sama mm. ginnaaw lañ nekk mm. waaw te vraiment amul lenn loo xam ni dox na ci diggante bi mais Sidi rek des fois ñooy def ay détails yu kenn xamul ñoo daal ñu xam ni booy sumay rakk lañ maa ñaan ñaanal yëpp ñi am ndam ñi am combat am ndam ñi yàlla ma leen ñu am ndam Hmm. école bi nekk ci jàmm parce que ñu tal nañ leneen léegi loolu dëpp nit micro muy wax leneen loo xam ne vraiment yooyu moom nekkatuñ ci quoi hmm. dañoo booloo nekk benn niñ commencé nii rek hmm. yàlla ñu ko àggalee noonu boo yëpp am ndam man ma ñoo am ndam école bi nekk ci kanam mais est-ce que ñoom xale yi ñu poser question chaque fois di wax ak ñoom mënuñu bàyyi xel que ni ah buñ la laajee ci nit sax rawatina guy gi mi nga xamante ni yéen a bokk couleur géejawaay bi ngeen di defaan nga xam ne guy gi du sa morom waaye sa kilifa la. waaw booy da ngeen di comprendre. te toog nañoo pël toog wax ne guy gi suñu garaa la bu ñu bu léegi léegi ma ñu dem këram jéggalu ko affaire yooyu. Hmm. man ba yooyu sax man jàppee mu ko ay problème la. Hmm. mais day foog ñoom fa lañ toll rek. Hmm. parce que léegi site yi bëri nañ bëri boo xam ne bo la ko dékkee boo defee ne yow site bi jomb na la rek. di nga wax lu moo tax xam nga comprendre guñu quoi. mais nit ki da ngay fexe am li mu am. ca toll fi mu toll. Mm. ba wax ji di liggéey. Mm. ba wax ji di jëf. Mm. ba wax ji nekk beneen niveau bu guy gi nekk. mais pas nga toog rek nekk ci sidi naan ratatata noonu loolu dama koy conseillé bépp mbër bu ndaw. li ngay wa li ngay liggéey. da ëpp li ngay wax lu tuuti ñun suñuy jamono li amul woon. ñun suñuy jamono sit yi amuñu ko woon. dañ daan dañ daan rayante pour daan. mën a teg toog bantamba. Mm. wala rayante pour daan pour mën a toog wala fajir wala TFM waaw lu amuñu ko woon mais léegi si ji bëri bëri benn booy benn combat lay daan toog booy nekk ci ginnaaw wër ko ñu naan la noo diw du sa morom nangam mm-hmm. nangam te fekk diw moom ñu naan du sa morom amaana boo toppoon ci moom lu lang nga for mm-hmm. kon dañ la dégg feneen wala feneen ak mm-hmm. ndax mënoo ànd ak mbër mun fayoo ay millions di def ci gàllaaj ay millions yow defoo ci gàllaaj na la def gàllaaju trois cent mille wala quatre cent mille loolu mbër mu ndaw mu am encadrement mu xam lumière moom moo ko mais topp ci ñoo xam ne dañ la naan non mbër mi te ñooñu dala ko wax mu ne on partait cent franc nag pour conseiller mbër yu ndaw rek la. Hmm. mais du caaga ni dama ko wax kenn koo xam ne ci école bi la. ñëpp laa ko boole quoi. pour hmm. lancer ko message rek. am na solo hmm. seen kilifa. seen xarit seen frère guy gi mooy wax ak yéen. guy gi ñu ñëw ci combat bi. mooy comme question bi ma ñëwoon léegi ci laay dellu si waat gis avant combat bi Reug Reug moo daan wax wax na wax wax wax ba sonal la nga jël avance guy gi dama ko sànni mepp mhm. jàpp ko dégg naa nga tontu ko ne ko mepp nga jël bu la ëpp doole mais ci biir wax ji dañuy gis léegi bu ñuy defee face to face guy gi mooy ëpp communication ko rek day ñëw rek jàpp ñàmbur waaw waaw ji lii wax yim daan wax yëpp ci internet yi ñu internet di ko tiim la man du jàkkaroog man mais man mbër mu jàkkaroog man di nga wax di nga tenir sa bopp di nga wax di nga te mënul ñàkk parce que du ma la may dara parce que li nga wax man lu ma wax téere la te boo demee boo jeexee fekk ko fa. Hmm. waaw xam naa nag loolu moo tax mbokk yi ne ko wala moom tamit mu xool ni wax ji du ko arrangé. Hmm. mais lépp jël naa sama matukaay muy wax ji muy làmb ja damay wax fii incha allah jëfale. waaw hmm. bu neexee sunu borom. nen dana woon onze ma ne ko onze nga jën boo xam ne lébu yi bëgguñu ko damay toll di ko waxaat lébu bu jën bi lébu yi duñ ko lekk. lébu du jën yëpp la ñuy lekk. di ñaan yàlla nag yàlla may ma ndam. Hmm. waaw parce que tey ku ci mel ni Père Mansour tey ak grand euh, ku ci mel ni Père Mansour ak grand kii grand lëy ak Lamine Niass Omar Der xam nga ku ci mel ni Prési Rawane euh, Ajana ah dañu mobiliser wu. mobilisant boo son boo xam ni man émotion bi sax dafa ma dafa ma commencé soke hmm. dama daan def regroupement man ma man seul ma daan defal sama regroupement sama bopp. Hmm. mais dañ la mën a teel sa xaalis. ñu gérer lépp. ñu gérer lépp. combat bee toll noonu wala adversaire bee toll. adversaire bee combat parce que waa waa waa waa Asegna dañoo soxla combat bi tey waa Pipip mbaamu mbaar mi ñoom am waa am gàddaay. Hmm. waa daaru mobilisation bi mu musée mosuma koo gis. moo tax mu ñëpp laay woo ku ci mel ni comme ni ma ko waxee léegi président Mohamed Dan Diop yow ñi ngi lay woo bu baax di la xaar ci kaar ak bii yi. Hmm. xaritu jibi sili la. bientôt mu ñëw Sénégal nit ku mm. baax la vraiment di xaritu baax Jibi tamit nekk Paris. Mm. président Mohamed Ben Diop ñu ngi lay xaar bu baax mouvement pass pass. Mm. ñu ngi lay xaar ci combat bi. Hmm. ak yeneen ak yoo xam ne vraiment Malick Gakou démb jaar na fi. wax nañ am na lu ñu def ñu ngi koy xaar moom xam na man na xam na parce que rek rek keroog mi doon wax muy basé ci heure euh, di wax lu xamul. Hmm. mu ne Malick Gakou euh, moo waroon jox ñii seen cinq mille jox na leen seen cinq millions mais man ma koy gëmal ni ko man ni mu mel na mel man laalaguma cinq millions mu dégg ko bu baax Sénégal dégg ko. Hmm. Malick Gakou suma Malick Gakou la nag mais laalaguma cinq millions. nee na moom diggante ma Malick Gakou depuis papa. waaw dama koy leeral parce ci yooyu ci plateau bi. Mm, mu ne jox nañ ko mu ni man. man jox nañ ma cinq millions quoi bi combat bi tegee Malick Gakou moo waxoon joxe cinq millions. man mm. jox na ma cinq millions damaa bàyyi mu sedd parce que du ma ci weranteeg moom. Mm. parce que xamul. man maa ngi nii teel la Malick Gakou nga joxuma cinq millions gisuma cinq millions mais moom suma Malick Gakou la. avant sax dara di xew. Mm-hmm. waaw kon defe naa Malick ñu lay xaar yàgg Ahmed Aïdara nouveau maire man benn maire ci Guédiawaye musuma jàppale ku du war a saar jili mu dafa metti du lu ñuy wax télé quoi su ma ko dee wax sax dafa xol bi day xaw dafa metti mais guy gi loolu autorité yi ne waa yëpp barki na Mohamed ku ma mas a jàppale na génn ne jàppale na guy gi benn maire guy gi man dama ju jili man dama jóge cana ba ñëw rayante ba ak si fii mais am na ñu neexul mais damay négocier ak ñëpp hmm. mais am na ñu neexul teg ma benn genre commentant man je suis fier de bool Baol hmm. di woowaa bool Baol yëpp ci combat bi je suis toi de bool Baol ñëw fars jom ba si fii maag mais li ñu bëgg mooy nga toog seen bureau wala nga ñu lay def yu kenn man nekkuma ci yooyu waaw wala ñu ñëw di la xam nga ay détails yoo xam ne duñ ko wax sax ci kii. Hmm. mais wallahi ku dul Woré saar fii fii Géejawaay génnal tere nga wax benn maire musuma jàppale. te loolu sama subvention la man. Hmm. lu ma moom la. dëgg la parce que boo demee école Mor Faram ka fa ka fa nekk ki tëddal liste bi du ma sax du ma sax tëddal liste def ma hmm. sama bopp. mais guy gi ngay wax. mais du ma dégg subvention du ma ko gis. du ma dégg tamit nga war a bëri ji maire jàppale la. te ñoom ñoo war a jël seen téléphone woola la. jàppale la parce que doomu géejawaay. loolu rafetul. naay suul sax ci xam nga. Ah, rafetul loolu wallaahi rafetul. rafetul yu métti ngay dund. xam nga mais yàlla moo ni guy gi day nekk mbër lii la ci am. yàlla mooy borom fan alimentaire lu ko neex def. lu ko mm-hmm. neex bu ko mm-hmm. deexee bu bu ko neexee tey tey guy gi nekk roi moom la ñuy ñaan. bu ko neexoon tey guy guy gi làmbam yem fi te ñaanuñu ko. Mm-hmm. yàlla bu mu am. Hmm. mais nag nit ki da ngay xam ni kii tey lim nekk yàlla sunu borom moo ko def. mais def ko boppam man ci oto yi laa nekkoon. Hmm. tey ñëpp ñi may seetaan treize goal lañ ma ñëpp def nañ ci football lay tekkee. Hmm. su ma mosaan fekk samay tànk dëggal tànk yi diw ko dem da naan jour baa ngi nii. lu ma dóor doo ko gis suma ma dayoo doo ma topp. su ma nekkee terrain mën naa football deux cent minutes du ma sonn mais yàlla dafa bañ loolu ne loolu nekkul guy gi lii mooy wërsëgam ci la nekk ñu nangu ko nag. Hmm. jox ñëpp cër. Hmm. indi suñu benn stratégie ci làmb ba hmm. ñëpp bëgguñu muy li daan loolu ñëpp bu adversif la doo bañ fula la ñuy def. te boo ñu gisee du ñu rab lu mbër am ci làmb dañoo ñaan yàlla am ko foo ñu fekkee fu ñu dëkk do da ñuy respecté parce que gëm nañ suñu bopp xam nañ fi ñuy teg suñu tànk. alors luy problème bi. luy problème bi autorité géejawaay li li li li suñu papa Gaston Mbengue doon wax bërki démb ci Bombardier mbër mu mel ne Bombardier di jóge Mbour. autorité mbuur yi kenn jàppalewu ko kenn taxu ko guy gi nag wax na benn message boo xamante ne vraiment képp kuy seetaan lamb dina la bett ba mu dalee bëre ba léegi amul benn autorité ku dul. jili jili sama jili man du ma fenn yaayam la yow suma rakk nga. jomm naa fu may toog yow di wax loo xam ne nga dem nga dem ah guy gi xaw ma la mel. dëgg la benn beneen bi. Hmm. man nit laa koo xam ne nii nit laa. sëñ Maodo damay def may ma may ma ma wala cinq cinq minutes nii nga hmm. dem na ah kon de grand guy gi. Hmm. yow je respecté bu ko da ma respecté. dëgg la yow ku dul ma sax da ko respecté nga ko jox ci rëb nga ah, guy gi xaw ni kon moom bu yàq day fenn. loolu. ku mas a maire bu mas a toog jàppale guy gi géej ay waxal. loolu leer na. du wax de kon. kenn yow. kenn du génn. na génn woo site. ñaaw na. te boobu ba tey. te koo ci wax mu ne la géejawaay moom a tax a jóg. te boobu géejawaay rek laa bëgg. saa am na ñu jàpp ah. seen bopp kilifa. moo wax loolu garaw tey ci télé bi. ci hmm. combat bi dem nañ ci sëriñ. wallaay fay ko xaalis ne bu guy gi bu mu daan bu mu te géejawaay gi leen dëkk. barke Seexu Tijaan. dem fay. pour guy gi bañ a daan rek rek. te ñu dëkk géejawaay di ak yow ngay défendre couleur géejawaay kon de man loolu jaaxal na ma kon de daa beneen waay bu ab bu dul guy gi loolu boo ko yëgee ci nga jëm ci xare jëm ci bis boo xamante ni bis bu rëy la lan la lay def. ndeysaan xol bi tooy na nit ku baax la nit ku rafet xol la wallaahi bu bu guy gi waxee ba xolam tooy vraiment mu mu mu tuur rongoñ vraiment loolu loolu du loo xamante ne. moo ñu jëmale ci émission bi moo ñu taxoon jog ndax jubluwuñ ci woon loolu liñ ci jublu rek mooy ñu wax loo xamante ne vraiment day jaay komba bi day day gën a defaraat combat bi mais ku xam ku kuy gi xam ni góor yàlla la ku ko xam-xam ni xool bu bu dëgër loo mais nag rongañ moom vraiment euh, ah vraiment géejawaay ngi noonu man nag comme comme dëkkuma géejawaay vraiment am na ci ñoo xamante ne dañ génnaat ñu xoolaat seen doxalin. te dee njaaxaanaay xam ni ah garaaw na yéeme na de. yéeme na lool sax. ndeysaan. ndeysaan. sant yàlla parce que sportif nga. vraiment sportif moom buy jóg ñu bari dañuy jóg mais ku ci nekk ak anam bi lay indee mais loolu boo ko boo ko boo ko dundee guy gi actuellement nga jëm ci combat boo xamante ni mayoo sa bopp ndam yàlla mooy maye ndam nan la lay def. jëli ñëpp bañ a ànd ak yow yàlla ànd ak yow moo gën. man ne yàlla ànd ak man rek. Hmm. ne yàlla ànd ak man parce que <laughs> dina baax. te ki def loolu xam nga ko. waaw yow jëli yooyu daa mata wax man yooyu nekkuma ci jëli jëli sama combat ak Boy Niang moo gënoon garaaw. barke Seydina Mohamed. Hmm. ay nit dem ci Serigne bu mu daan. dafa yaakaar ne moom géejawaay te dañuy jàppee ñooñ dañ leen parce que loolu du man ne ay kilifa lañ. Hmm. parce que kilifa du def loolu. dafa jàpp moom moom Guédiawaye bu daanoon tey day jàpp ni moom moom Guédiawaye xam nga. Hmm. affaire yooyu te xam nga affaire du foofu ji la muy soxor muy soxor muy soxor xam nga. Hmm. te affaire yi du foofu jëlee affaire yi xam nga yàlla moo pare ñu bàyyi rek suñu boroom def li muy def xam nga mais moo gën gàggal yi far si jëli man nit li ma la wax rek mooy laay demee. Mm-hmm. waaw man bu ma duggee ci calaf bi tente nas mi ngi may dégg waa tente ñu may dégg 17 millions lañ jënd billet ñetti combat yi. 17 millions. 17 millions lañ jënd billet ñoom sax nañ ko dagg sama xaalis. combat bu nekk 5 million ak lu teg. ñi may dégg waa tente nas ngi may dégg. Mm-hmm. di ko dagg di chaque combat ñu jël xaaj benn 5 millions dem da da booy dem. Mm-hmm. regroupement noonu ma géré laajuma kenn super car billet lépp. xam nga. Hmm. mais sax loolu man la war. mais rafet na man nekk di défendre kuréelu géejawaay. Hmm. xam nga. Hmm. xam ne man champion la donte yëkkatiwuñu xaalis jox la sax ñu ñëw soutenir loolu rek moo ma épaulé la loolu rek moo ma ne man combat bi li ma ci soxla mooy ay biir rek booy dem. parce que métti na def nañ ñetti yoon dem États-Unis te nit dugalu ci loxoom. te gor laa am na yoo xam ne man waruma sama moromu gor lañ tëggandoo combat bi du toog fen du yuuxu man may génn di yuuxu du ma ko def. te promoteur bi ñu ngi waxtaan amul benn problème man ak promoteur yi kon du ma génn di yuuxool may def leneen mais man doomu géejawaay laa kërul géejawaay lay défendre man su ma nuyoo ba sant waa Thiénaba lépp géejawaay laa ko indiwaat lu guddi guddi laay laay fanaan mm-hmm. su ma daanoon munoo fexe ba ma tekkee ngemb Thiénaba géejawaay laay tekkee ngemb mm-hmm. xam nga mais xam nga sagam yàlla sax moo tollewul nit ñi yamuñu mm-hmm. mais ñu teg ma ci benn niveau bi kaa jox ma man li ma moom waaw. gis ni da nga wéet géejawaay daal ni guy gi war a loolu kenn waxatu ko mais man yow man damay bañ bañ lu nii rek mais sama làmb bu fekkoon yenn yi détaillé ni barke alxuraan pare naa bu yàgg mm-hmm, mais man mm-hmm. bañkat la ah. barke la wallahi wal azim bañkat la bañkat da gis ay bo nit sax fay ay booy ñu dem ci réseaux sociaux yi pour bëgg a yàqu guy gi ñoo xam ne yéen nekk di entraînandoo di bëreendoo mais du ma tontu parce que ñi ma xam xam nañ ma ñu ma xam jili man xam nañ ma xam nañ sama xol. Mm-hmm. man jili man lepp ba am ay bor nit ñi di lekk di dundee moo ma gën a sax may lekk dara di bàyyi kenn. Mm-hmm. moo gën te ak yeneen yoo xam ne sax xam nga bëgguma sax di expliquer ci télé mais man nit laa koo xam ne yéenu ma kenn lu bon. yéenu ma kenn lu bon. au contraire ñi may defal lu baax la ñooy tourné di ma war. mais nag fi lañ ko fekk di ñaan yàlla rek yàlla may man ndam ci combat bi yàlla ànd ak man ci combat bi. Mm. li war lépp def nañ ko suñu borom dernière décision bi moom moo ko yor. Reug moo koy daan. liggéey gëm sa bopp liggéey gëm sa bopp te am naa ñaanu ñaari waajur man ba xam ko su ma ko amul woon tey ginnaaw ñaanu suñu borom tey. Hmm. billaahi duma taxaw fii di wax. jili pakasal boo boo xalaat boo xalaat. bu hmm. garaaw am naa ko bu garaaw. jili mën naa teel la dara bëri naa cinq combats yoo xam ne bi ma nekk écurie moo faram ba pat damay toggaañ ba pare ku ma ni nga dem ci écurie bi doo dem. Hmm. ay ay karatéka laay mujj di àndal ay booy yu football du mbër. billaahi su ma demee bëri ji drapeau indi ko ñu ni dafa defarul drapeau. ci jëlu ko non ci yow. bi nga demee ba gëm ni fi mu toll nii actuellement parce que guy gi ensonné nga ay combat yoo xam ne simple rek koo jàpp mu jóg koo jàpp mu jóg. sama idole bu baax saa kajoor numéro 2. ndeysaan. waaw di ko nuyu bu baax chaque jour ñu ngi déggante ci combat bi. Mm-hmm. dama ne la combat bi dama ci am courage am ci yaxin xam nga ma am ci yaxin. Mm. bam ne takk ma waxtaan ak saako yor mënuma nii ngay def ak nii ak nii ak nii. parce que moom lu ma mas wax ci làmb du deñ. te loolu ma gënoon loolu laa gën a bëggaan di ko déglu te man du ma wax lu ma gëmul. Mm-hmm. tey bu ne ma demal gëmm yëkkati say loxo damay dem gëmm te xam ne bu rëg rëg ñëwee moom mooy daanu. lu leer nag laa lay wax man noonu lay dundee. te mm. chaque jour ñu ngi waxtaan chaque jour ñu ngi waxtaan waaw li ngay dégager nii est-ce que làmb ja moom nga yóbbu ci digg géew bi yàgg Reug Reug lu ko raw tax Sénégal gi yëpp Reug Reug lañ jox favori Sénégal gi yëpp. Hmm. ba ci ñi ngay yeewandool sax am na ñu gëmul ne mun ngaa daan Reug Reug. Hmm. mais man damay nit koo xam ni damaa gëm sama bopp. wallaay <laughs> guy gi. bu arbitre sifflé ñu ne kii woon du guy gi. jili teg naa sama bopp loo xam ne man ci wàllu entraînement. Hmm. médecin bi dana ma jaaduwul. ci wàllu physique ci wàllu lépp yor nag poids boo mais da koo dindi dañ koo dindi sama coach yi di nuyu Malal Baro sama taaw. di nuyu hmm. tamit Laye Gueye sama coach Bolo mi ngi métti ñu ngi koy dund. waaw di entraîner di dem di ñëw ak booy contact ak man yëpp bàyyiwuma kenn su ma limee damay juum am lycée Ngala Bada. Hmm. Cheikh Super Jamono. Hmm. bu Siteu. ah Moussa Mboub ah mais tactique tactique de jeu bi nga fas yéene bàyyiwuma kenn ñu nekk ci école bi. ñoom ñëpp ñu koy jàpp. vraiment tactique de jeu ah. bi nga nar a indi Reug Reug est que bu tegee tànk tegal la pied yi di nga déplacé wala di nga xeex moom wala da ngay daw rek. ak non moom moo soxla nag bala maa dama lay lu leer ci kii bi moom moo soxla na leer bala ñu dem naan guy gi moo wax li ko. Hmm. dinaa ko may arrêt de temps bu ndaw. gën ngaa bëri cinq minutes lay doon bu ñëwul ma fekk si ko fa mais nag moom moo soxla. boo koy fekk see da ngay daw song wala da koy xeex non loolu moom ñu ngi ciy liggéey mais xeex bi moo war a ëpp ci combat man ak moom a ëpp jiili. guy gi masse bi mo gis bi nga demee États-Unis lan nga fa doon liggéey ak bi nga ñëwee Sénégal ci yan étape nga nekk parce que ñow nga Sénégal lu yàgg kenn xamu ko. ngay làqatu masse bi ji dafa de. damaa wàññeeku lii barki Seexu Tijaan laayal sama boy damaa wàññeeku. billahi damaa wàññeeku damaa wàññeeku jil de wàññi naa bu baax a baax a baax. ni ma toll bi nga jógee wàññi nga poids. jil feebar naa fi quatre fois. déggoo ma la médecin bi dama laa junj mais mais pour man sama émission day leer. waaw parce que yow comme ni ma la ko waxee. ma toog yow pour ma développer daf may neex. Hmm. yow su ma rakk nga. dëgg la j'ai de respect da nga ma jox cër. da baax parce que ay jamono bi fi xaw ma kan kii biñ la wooyee ne nangam na booy bi wax da nga ne ma yow loo ma wax dama koy def booy bu may toog yow dinaa li xam li nekk ci man. muy United te la feebar. médecin bi ne ma li nga teg sa yaram jaadul ma ko ki may bëreel moo toll noonu. Hmm. entre mbaa mbaa dee. te combat bu ñëpp demee ne diw moo la mën war ngaa rey sa bakkan. Hmm. jibi si la sama benn gànnaaw bu nekk jibi si la au face à Paris. Hmm. mooy xaritu Mouhamed Ben Diop président mouvement Pass-Pass. barke alxuraanu Karim. day wax man ba xol bi nga xam ni kii tey jooyoo ko sama waa ji dimbale ma ngir yàlla. combat bi teg ci sa bakkan barki dem ay millions yu bëri la mu yóbbante wallahi wala azim genre yu mel noonu rek tax na yow ngay rey sa bopp parce que man nit la ko xam ne bañkat laa. diw la mën te ñu nekk ci làmb ji laale guñu lool lay bañ jili ñaari loxo nga yor yor ñaari tànk. wolof de nee ko yow kon yow ñoo bokk lu ñu wax moom ñamagu ma bëgg ma yëpp pour fu ko teg. bu yoxe yow sax des fois day nelaw du la jox sa cër <laughs> ma ne ko di nga tëdd fii di nga tëdd fële. ah te li ma wax moo am. te booy lii lay def. di def nii ah. soo waree mu ne guy gi fu ma ko jàpp daan ko. dis ko maa ko man nangam ak nangam fan la ko teg kan moo ko dey ki ko dey noonu ba muy ñëw di kekk diis dey nañ ma man te damay teg. benn bu hmm. ko dey ba muy war tatatat olof laa lay wax nag diis dey nañ ma te damay tekk jox ko cëram. booy wax sax da daal see guy gi ki par jili mën jili jili mën jili mën mbër bu ma waragul sa kaw uh-huh. du ma gëm ni daan naa la Reug Reug dama ko nangul lépp xam ni champion hmm. am na doole mën na bëri mën na xeex am na gàllaaj mais pour man lu tax man benn rek la may nangul benn dama bari wax booy wax rek mu ni guy gi moom la may nangul pour lan ma koy nangul benn <laughs> mais dina leer bala vingt février incha yàggatul. Euh. yàggatul. yéen ñëw fas yéene dugg si arène nationale yéen ñaar guy gi bu dugg si rek pare. surtout bii ci raw bii ma jaaga Pambay ndeysaan di ko nuyu. dafa jóge États-Unis ñëw dafa jóge Allemagne ñëw pour combat bi far ñu renvoyé ko. Hmm. mais dama ne la mi ñëwoon ak de saako yor Reug Reug am na problème. man damay déglu nit damay déglu conseil te ñooñ dafa am luñ bokk ci man dafa am luñ dafa lu ñuy def ci man mais nag sant yàlla. li ci des bëriwul wax ji léegi li ci des wax moom mën naa ne bu ma waxee ci yow nii du ma waxaat. Hmm. talu ma ko sax. Hmm. liggéey di xaar la vingt. mais guy gi boo gisee rek rek gisante ngeen jàkkaarloo jaxran hmm. bi nga ko gisee bët day natt. yéen ñaar kopp doole. doole moom faaw ngeen laale ba pare. faaw ngeen jàppante parce que maas ak doole bokkul. maas ak doole bokkul. waaw moom moom gi neexoo fa maas de. non non non moom ba moom macha allah moom mi ngi liggéey parce que nit ki tamit da koy waxal da koy waxal. Euh, jikkoom kii yëpp quoi hmm. dëgg yàlla mi ngi liggéey mi ngi liggéey te bëgg na combat bi. bu jëkk ba da nga nekkoon demal liggéey. waaw fonkal waaw waaw demal liggéey. waaw waaw mais loolu nga gisaat ko ne liggéey mi ngi liggéey. mi ngi liggéey fonk na combat bi daal laa koy wax. mais du hmm. dugg ci yenn détails yi ba ëpp. Hmm. waaw parce que tamit comme ni wax yenn na maanaam bu jëkk ba dañ ko wàññi woon comme MMA. benn poids bi wax na dëgg mais léegi moom macha allah mi ngi liggéey quoi. mi ngi liggéey te bëgg na combat bi li des daal mooy yàlla na yàlla ànd man. julli daal ndam li leen yàlla mayoon baral. yàlla ma ko may ci kaw rëg-rëg la vingt février incha allah. Hmm. waaw yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def. yaa xëy yaa xëyumu bi rahmatika nasta'iin hmm. yàlla moom moom nekkul fi kenn. Hmm. lim yor moom di ko may lam làq te gisoo ko mu ëpp fuuf te man jullit laa te gëm naa ne jullit laa. te gëm yàlla gëm naa yàlla te naa ko wóolu naa ko. yàlla ma yàlla may ndam ci kaw rek rek yàlla ma yàlla musal ci cat. yàlla na ma yàlla mosal ci cat yàlla na ma yàlla mosal cat ba làmb ja yàlla may ma sama teeg bakkan man ak rek ñu bëree ci jàmm comme ni mu ko waxee rek man du ma gën a gore keroog nee na ñaanuma yàlla dóor guy gu mu daanu man tamit ma yàlla dóor rek rek mu daanu sama mbokk julit la. Hmm. safaan bi du mujjee ci man te nit ki ku taxaw yow di sa moroomu gor ne la ñaanuma yàlla dóor la nga daanu su dee gor nga di ko delloo ne ko ne ko ñaanuma yàlla dóor la nga daanu. mais ñaan nga yàlla buddi ko ba ci naa yàlla buddi ko ba ci kaw. xeex xeex bu métti tegal ko deux temps ko romb ko. mu ñëw fii ma invité ko añ. bu ko defee nag mu indil ma yeneen jën bu dul jën bi mu os. Ah. waaw kon ñu lay jaajëfal bu baax kontaan naa vraiment maa lay jaajëfal bu baax di woo di woowaat ñëpp rek sama mm. yaay war saar di ko waa ku ci mel ne mm. Bala Ñaa séeréer maam jaar moom takk na drapeau bi mm. waa aseg naa waa daaru ma limee damay jum bàyyi ma kenn di xam naa le treize lañ koy jàpp ëppante presse bi liiru jaan suma ganaa laa ko tuddee liiru jaan sama ganaa laa tuddee moom laa tuddee ëppante eh, presse liiru am nga bis ko tuddee ma ko politicien mm. tuddee ma ko footballeur tuddee ma ko eh, euh, basketteur tuddee ma ko joueur jaan suma ganaa laa tuddee ëppante presse bi moom maa gée euh, monument géejawaay la vraiment man ak moom amoon nañ fi ay wax wax yooyu ñu amoon defe naa mm. moo defar suñu diggante liiru boo tooga moom di xam nit ku baax la dëgg la liiru jaan laa ko tuddee muy suma mm. garant nag te sama xol bi laa ko tuddee la laa ko tuddee mm. bu doon tey li may ko du jaar ba ba ma koy tuddee open de presse mm-hmm. waaw man daal li may mën mooy ni ñaanal ñu ñu jàmm waa Géejawaay ñu am jàmm mm-hmm. buñ amee jàmm rek dinañ nekk ci kanam ñu ci bokkul nañ ci génn ñu bëggul am jàmm nañ dem ci fi ñu xam ne jàmm ay ay fa la nekk ñu dem fa vraiment man nag nekkuma fi tey naan que kii ka kee di weranteeg yooyu li nekk sama xol laa génne hmm. bu dee wax naa fi lu lu lu garaaw maa ngi jégalu jiili te xam ne sama xol moo mënu tëdd yenn yi bu dee wax naa fi lu baax sunu hmm. borom la matuma hmm. waaw di ñaanal ñëpp jàmm sama waa koñ bàyyi ma kenn koo xalaat sama koñ bàyyi ma kenn di nuyuwaat sama yaay Wari Sarr bu baax di nuyu Malick Gakou Ahmed Aïdara maa ngi koy nuyu sama hmm. grand Aziz Ndiaye maa koy woo ci combat bi grand Masata maa koy woo ci combat bi Baara Gaye Kiling Ewal ak Baara Gaye meeru yëmbal hmm. bàyyiwuma kenn képp koo xam daal vraiment yaa ngi jàppale guy gi maa lay woo Ali Mané sax Mbacke hmm. Ndiaye Pape Mama Fall Andaw xaritu bara ñoom ñëpp maa ngi leen di woo yàlla jàppale ñu bañ def mobilisation li ma bëgg ci ñoom ñooñu ñu taaral bis bi jënd billet booy dem waaw rek booy dem di nuyu rek sama benn grand lii moom jili génnal ma ko quoi. léppay génn suma benn grand boo xam ne oo ma fayam. Mm-hmm. Sila séeri na bu jaañ borom naa TV. Mm-hmm. si Sila damaa njëkk a dajeeg moom toog. Mm-hmm. Sila génn millions yu bëri jox ma. ndeysaan Sila naa la sax booleeg moom. moom jàpp nañu rek fi nekkee non wallaahi naa la booleeg moom. yaa ngi dégg mu génn millions yu bëri jox ma. Mm-hmm. barki démb ma dem toog ak moom. mu mm-hmm. génnoon millions yu bëri jox ma boole ko la ma di ma conseiller. si la man guy gi kontaan naa ci yow. Mm-hmm. yaag sa sa soxna yi mais man ki ma féetal mooy Nabou Diagne. séeri euh, séeri si la borom naa TV. man moom laa féetal mais sa soxna yëpp a baax. kañ fa fekkoon keroog defe naa mooy xawma a bi mooy fi ñu recevoir woon ba ma ñu xaalis bu bëri bi. man ak kooku. du ma tudd tur nag. vraiment. kooku bi ñuy man ak moom. Hmm. dama ko ni samay nit laay dem dinañ ko sax génne. Hmm. mais bañ demee toog moom rëccuwul fi ma ko si laa defal ko teraanga. defal ñu teraanga ah, Sila maa ngi lay nuyu bu baax di wan ne vraiment man kontaan naa ci yow. Hmm. waaw jëli daal mention spéciale ñëpp. ñëpp waa Thiénaba mention spéciale ñëpp ne ñëpp waaj stade bi laa bëgg mu fees dell. laaj ñu kenn biyee ne ñëpp déparé surtout bi Biafra ak sama fans club bi fii Fassar ak Baba Touré prési ne ñëpp waaj ñu génn biyee teel a génn añ yi rangale kaar yi dof guy gi ñëw ñu ji la dem stade ci fair play nag kuy dem di jël moto jàmbur bul ma supporter. kuy yóbbu paaka bul ma supporter. Mhm. kuy yóbbu sax poso. Mhm. bul ma supporter bëgguma nga supporter ma. Mhm. ki ma bëgg nga supporter mooy ki yam ak man jikko toog waxtaan mbalak ree parce que seen mbër loolu seen mbër loolu lañ ko xamee. dindi stress waxtaan kaf ree dem toog ci kaw ñoom nañ yëngal ma jàpp Reug Reug jàngal ko bëre ci stade bi ay minit jox ko tànke mu jàpp manis public bi jug leen ma daan Reug Reug ñu yibbi ci kàttan Seydina Mohamed. jërëjëf maa bu baax la woon ñu